téléspectateurs bonjour et bienvenue sur VA TV Vision Avenir ñu ngi leen nuyuwaat bu baax a baax waaye tamit di leen jaajafal te nag ñu ngi fii euh, ci garage bu Tëngéej fas yéene waxtaan ak euh, ñi nga xam ne ñooy transporteurs yi waaye tamit euh, clients yi tamit duñu leen bàyyi benn yoon ñu wax ñu ana na lañ gisee li nga xam moom mooy paas bi ak tamit waxtaan ak transporteurs yi ba xam clients yi ñu ngi ñëw bu baax a baax man na teg sama caméra mu mën ki nga xam ne mooy m su baaxee rek da daal di may topp ñu fas yéene ko waxtaanee let's go naa la fay la soxna si. tur bi. Modou Ciss. Modou Ciss tey ñoo fekkal la fii ci garage fa yéene waxtaan ak yow euh, nan nga gisee dañoo gis ne sax laay wax ne bu événement jotee yéen chauffeur yi da ngeen di yokk euh, paas yi lan moo waral li ni mel. mais paas yi faaw ñu yokk événement moom boo déggee événement rek moo waral yokkaay yokkaay paas mi te encore longue voyage yi dafa xaw a sori encore bu doon maanaam du événement sax loolu garaawul mais lu doon événement maanaam boo naree dem fii ba ay Ziguinchor. même dañ la daan fay 6000 événement bu jotee nga war fay 6000 xam nga loolu mun a arrange chauffeur ah yaa ngi xalaat ay njàpp yaa ngi xalaat yoon bi ndax di nga si paan wala doo si paan loolu moo tax ñu mu loolu moo tax gars yi mun a def voyage maanaam longue voyage yi ay 10 000 wala 15 000. mais tamit ak dëkk bu cher bi est-ce que tamit jotul yéen chauffeur yi ngeen euh, yërëm client yi jàppale leen ci benn côté. mais loolu yëpp mun naa nekk loo gis ak waxtaan la loolu mun naa nekk mais dëgg bi dëgër na mais événement moom bu ñëwee moom dara déggatul si ñun événement moom bu jotee dara méttiwul si ñun. mais bàyyi nga ni clients yi dañoo mer. waaw mais dañ d' accord clients yi ñun ñooy clients yi clients yi ñooy ñun mais dañuy waxtaan ba juboo rek. Mm. waaw. léegi yow ban trajet ngay daw. man damay daw Ziguinchor damay daw Kolda. damay daw Fouta damay daw Tamba. ok léegi ba clients yi ba xam ñu ngi ñëw wala wala ñëwaguñ. clients yi ñooy ñëw nice. waaw ñoo ngi génn ndànk ndànk daal mm-hmm. waaw. léegi lan ngay wax client yi la am na ñoo xam ne bëgg nañ dem voyager mais dañoo ragal ak paas yeeg maanaam daal frais yi loolu leen di wax. mais loolu dara xam nga maanaam boo bëggee dem sa paas matul ki nga xam ne mooy apprendre wala mooy chauffeur bi mais demal ba si moom nga waxtaan ak moom en plus mun na laa wàññil paas bi sax loolu yëpp day nekk loo gis ak waxtaan la. am na ñoo xam ne nag yor nañ loo xam ne maanaam seen morom yoruñu ko dañuy paas devis dem am na ñoo xam ne mais yoruñu ko. mais si vous ñun wala sevori mën nañ au moins ngay mën nañ la ay ah, je viens à euh, encore pour prendre un bus mhm. mais l'année dernière aussi c'était comme ça. Euh, je serai là pendant deux jours pour, avoir un bus. Même aujourd'hui aussi, je suis là depuis 9 h Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas eu un bus. chaque événement, il y aura des, y aura des problèmes oui, oui, chaque événement c'est comme ça. Chaque événement c'est comme ça. Il y a des manques d'organisation au niveau euh, du, garage, aussi des chefs de garage. Oui, c'est ça le problème. Et les prix Oui, franchement, les prix l'année dernière c'était 7 000 francs. Mais aujourd'hui, les prix c'est à 10 000 francs. Waouh Et tu sais pas pourquoi non, on ne sait pas. On ne sait pas franchement, on ne sait pas pourquoi. Mais on a, on venu seulement, on, nous a proposé 10 000 francs pour Ok, euh, malheureusement, on t'a proposé 10 000 francs et tu l'as payé. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de choix. maman, tu dois payer. Donc nous sommes là, nous avons payé 10 000 francs et jusqu'à maintenant, on ne nous a pas eu plus. On, sait aussi, dans quelques temps aussi, il va augmenter le prix. Ok, quel conseil donnerais-tu aux transporteurs Aux transporteurs qu'ils soient des hommes véridiques. C'est ça, c'est ça le problème, c'est ça. Surtout les casseurs et les, comment et les, les de bus. C'est ça, qu'ils soient corrects, euh, qu'ils organisent reconnaissent aussi leur, leur, leur, clientèle. C'est ça le problème. Quoi. merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. À très vite. Inch'Allah. Ok, merci. Ah, Man, Boubacar Sow tey ñu fekkoon la fii nii ci garage fas yéene waxtaan ak yow ñu gis ne euh, clients yi ñu ngi ñaxtu ne paas bi dafa seer yow na nga ko gisee en tant que transporteur. mais paas bi xam nga lu tax mu seer quoi parce que dégg naa ñu ne daaw ak ni ren paas bi te ren dafa yokkul te daaw yokkul boo gisee daaw yokkul daaw oto dafa amoon quoi mais gisee ren oto yi dañoo manqué te policiers yi daaw ak ren bokkuñ ren dañoo sonal te daaw sonalee wu noonu. moo waraloon ko ñu yok pass bi. kon dal su ma déggee sa yokk bu baaxa baax dafa melni policier yi ñoo yokk no tax ngeen yok pass yi. wala policier tax ñu yok pass bi parce que da ngay gën fi dem ba kémer ñu arrêté la nga samp 1000 francs génnaat demay ko sampaat bari sa saatool fi bu Fuuta da ngay samp ay 1000 1000 lool dafa metti ak sol gasoil bi gasoil bi dafa yokk waaw moo waraloon ñu yok pass bi ren. mais tamit est-ce que tamit jotul yeen ndjol ngeen ngeen ngeen ngeen jappalé client yi bu baaxa baax ngeen baña xol lek sen intérêt mais client yi mën nañ leen naa jàppale mais affaire bi day métti si ñun trop parce que boo xalaatee fii ba Fuuta ay kilomètres kilomètres la dafa sori trop trop da ngay sol gasoil te da ngay samp dafa bëri te boo génnee fii douanier dañ lay sonal aussi loolu dafa métti si ñun quoi foog ñu yokk paas yi. léegi lan ngay wax client yi. client yi léegi mooy li ma leen di wax mooy nangoo fay paas bu nangoo fay paas oro instant yi oro dafa jafe yaa ngi oro dafa jafe trop. léegi bu ñu nangoo fay paas man moom sama oto ngi nii taxaw dama leen yóbbu entre oto yi tamit leen am na si dañuy yàkkalte man damay dem fii ba Fuuta moom bu ñu fayee moom mooy si arrangement parce que affaire yi dafa métti trop te dëkk bi dafa dëgër. dëgg la ngi doon ñu ngi baax a baax. waaw jaajëf waay. gis ngeen ami chers téléspectateurs internautes VATV li nga xam ne moom la ñu doon tey fii nii ci garage bu euh, Tëngéej gis ngeen li nga xam ne loolu lañ client yi wax nee nañu euh, pass bi dafa daal di bu baax a baax surtout bu événement bi événement bi nga xam mooy tabaski bu jotee waaye tamit dégg nañ transporteurs yi li nga xam ne tamit wax nañ ko nee nañ ku nekk rek dañ ci bëgg a gis sa bopp loolu la waral pass yi di yokk bu baax a baax kon nag ñoo ko déggandoo noonu di leen joxaat dig daje rek ndiki euh, semaine prochaine incha allah seen beneen thème d'ici là portez-vous bien Waïtamit, tamit di bonne fête de tabaski à vous tous merci